yéen mag ak ndaw asalaamaaleykum wa noo ngi sant sunu borom tabaraka gu yaatoo yaatu ci ay xéewalam ak i ndimbalam ak kaaraangeem di sant nag cant goo xam ne dañ koy jëmale ci mbokki jullit yi ci seeni yëg-yëg ak seeni ñeewent ak seeni ñaan yoo xam ne fan yii gis nañ ci loo xam ne yaakaaruñu woon nag ne mbir mi àgg na foofa muy ci sun biir réewum bopp mi muy ci biir continent Afrique bi ba génn continent Afrique bi dem ba ci réewi penku ya yàlla xam na ne li ñu jot fan yii ci ay téléphone ak ay audio yoo xam ne ay nit dañ ko yónnee ñii di ñaan ñii di laaj lu xew ñii di ndokkeel kenn xamul nu mu gannaaw loolu mbokk yi teew ñu ngi leen di ñaan sunu bor ñaanal sunu borom tabaraka wa mu nangul leen seenub coono bi ngeen def ba agsi fii di jéggalu mbokk yi ci ni palaas bi demee itam tàmbalee ko ci ñi nga xam ne dañoo taxaw te ne ci biir ba àgg ci ñi taxaw te nekk ca bitti amaana am ci ñoo xam ne sax ci naaj lañ nekk loolu lépp ngir am ak xër ak yitte ci diine yàlla ji sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu jaral leen jóg ñu bëgg mu nekk lu ñoŋ loo xam ne kenn du ko laal kenn du ko jege ndax kat yonent boobu sallallahu alayhi wa alihi wa kenn ku ne ci nun mooy ki nga xam ne moo la gënal sa bopp sa ndey ak sa baay ak sa doom taxul ñuy wax li ñu jëkk a tàmbalee mooy nun day sun woote bii nga xam ne mooy woote ahlu sunna wal muy woote bu tegu ci kaw alquran ak sunna ma fekk ko fii ci senegaal bi ma ñëwee nekk ci ak léegi 1997 ba suñ jonni tey mu ngi bëgg a mat ab diir booba ba léegi noo ngi ci liggéey suñ kem kàttan ci jéem a amal li ñuy tudde xam-xam ci askan wi ci lépp loo xam ne day indi jàmm akuk dal ci sun réew mii ak ci sun continent bi ak sax ci àdduna taxawaay boobu yi noo ngi ciy jéem lan ca man ci ndimbalul yàlla muy ci biir réew mi muy ca bitim réew itam gis nan nag ay taxawaay yoo xam ne ay nit jóg nañ di ko taxaw ngir jabolise liggéeyu lislaam boobu yi nga xam ne moom laa tudd léegi loolu nag du lu yees waaye la ma ci tàmbalee seetlu man tam jëm ci sama jëm ak Cheikh Ibrahima mi ndax li may wax lépp daanaka lu ci nekk lu ma ci wax rek daanaka noo ko bokk ma nga tàmbalee ca ab téere boo xam ne maa ko bind 1992 ñu publier ko 1996 biñ ko bindee léegi déwén lay am fanweeri at téere boobee nekkoon ab thèse boo xam ne euh, doctorat troisième cycle lañ ko doon tudde ci yooyu jamono muy tolloog master sun jamono yii am ay nit yu jóg moo xam lu nekk ci seeni xol ñu jël téere boobee def ko ab jaaruwaay ngir ñaawal lépp loo xam ne dafa jëm ci wooteb sunna def ay taabal ronde ay conférence dem ci rajo yi dem ci télévision yi ci téere boo xam ne dañ koo bindal ay boroomi xam-xam ñu jële ko nu leen neexe waxe ko nu leen neexe jox ko ay nit ñoo xam ne ñu mënta jàng téere ba la yattal seen bopp ci seeni xel lañ jàpp ne moo gën a ñaaw daldi wax ne loola moo nekk ci téere ba te lu bari ci ñoom su ma waxul ne lu ëpp ci ñoom sax damay wax ne jànguñu téere ba ndax ñu ca bari ñu cay wax mënuñu koo jàng walla suñ ko mënee jàngit amuñu muñu man koo teelu jàng ko ñaari tom yépp ba mu jeex dañuy cuqati fii cuqati fële rek daal di boole tàmbali di wax su ko defee keneen ka jóge fële tuxale ca ka doon wax mujj ñu teg téere ba fële ya ñuy wax ñi du ko toxalante ci seeni xel lañ koy ràbbe dem nañ ba ne téere bi li ca nekk mooy yéefarloo mboolem borom xam yi xeetu lislaam jàppe leen ay faasiquun jàppe leen ñoo xam ne sax dañuy wax ne ndey ak baay mën naa sëy jigéen ak nangam mën naa sëy te xam ne téere ba ba mu jeex loo xam ne auteur ba muy bindkat bi moo ne diw sàngam ab yéefar la loolu nekkul ci téere ba lañuy wax naan nit mën naa takk keneen koo xam ne ku ko jege ci bokk la maanaam ndeyam walla ab jigéenam dañoo fekk benn kuréel boo xam ne cheikhul islam ibnu taymiya moo cay wax muy ñi nga xam ne dañoo gëm ne lépp loo gis rek yàlla la loo teg bët wala nga laal kook loxo wala yow ci sa bopp yàlla nga ki nga toogal nii yàlla la téléphone bi nga yor yàlla la lépp yàlla la loolu la ñuy tuddee waxdatul wujud kuréel bi gëm loolu ibnu taymiya dafa toxal ci kenn ci boroom xam-xam yi mu laaj kenn ci waa pas-pas boobu yi ne ko waaw yéen bu fekkee lépp yàlla la kon lu tax ndey di xaraam doomam kooka tontu ko ne ko loolu kat yéen waa sharia yéen a ni dafa xaraam rek noonu itam nu ne daa xaraam waaye bu dee nun moom loolu garaawut loolee ñu nettali ko ngir gravité boo xam ne pas-pas boobu garaaw na ko nan lañ ko interprété ñu ne borom téere bi kat nee na nun ñii déggal de sun mag ñii fi nekkoon képp koo xam ne dangaa nekk ci li ñu tudde ak sufiyanke seeni ndey ak seeni baay mën nañoo ndey ak doom mën nañoo sëy nit ak jigéenam mën nañoo sëy ñu ne loola la borom téere bi wax tasaare ko ci nit ñi ba mu nekk ci bopp yi waaye dama leen di waxoon rek ci ay jamono yoo xam ne ñoom ñëpp dajaloo nañ fi benn béréb di wax wax ju bare bare bari ba génne ab liste ci ay boromi xam-xam yoo xam ne dañoo tudd ne yéefarloo nañ leen ci téere ba dama leen a waxoon ne wax leen loola fu mu nekk ci téere bi ne leen may naa leen ngeen seet yéen ñii nga xam ne yéen wax loolu ba ba ngeen di dund ba seenu dund jeex du ngeen génne lii ngeen wax seeni doom wala seeni sët ñëw donn leen di gëstu di seet ci téere bi ba mu jeex duñ ko ca gis loolee moom lay feddliwaat kon daal seen résultat ca lañ doon liggéey mooy nañ fexe ba ñii ñi dox seen diggante ak mag ñi fi nekkoon di dund lislaam wane ni ñii seeni noon lañ ñii dañ leen a bañ dañ leen di saaga dañ leen di xas dem nañ ba àgg ci ne nun dañuy ubbee ci suñu fatawa di wax ne daganul kenn di julli ci seeni jàkka loolu lépp dem nañ ba àgg ci ba tasaare ko ci nit ñi ba gëm loo leen ko fexe ba image boobu ñi xamul jàpp nañ ne loolu rek la lan mel dem nañ ba ne ndaw ñi nun noo leen di yar ci saaga ak xaste te wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne kuy jàngale saaga moom danañ la dégg ngay saaga ndax li nit ki mokkal ba di ko jàngale xanaa danga toog dégg ko boog benn yoon moom mu saaga beneen bi ñu ne nun ci ay jamono danoo am ak jokkoo ak groupe armé yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante Mali ak ay Nigéria dem nañ ba ay nit ci seeni xalima di bind woroomi làmmiñ di wax ñii tudd suñuy daara di tudd suñuy association di wax wax ju sew naan ñii ñoo fi représenté ñooñu loolu lépp pour lan ñaawal derub ñii ba askanu Sénégal ragal leen di leen daw lu tax gis nañ ne ñii woote bii ñu yore muy nar a delluwaat ci alxuraan ak sunna lam jàngale te dara lëndëmu ci suñ fexee ba dugal ko ci bopp Sénégal yi kon intérêt yu baree bari yoo xam ne doomu aadama yi dañ ko doon jariñu ci seeni moroom duutuñu ko mën a am loolu rek mooy li làqu ci gannaaw loolu lépp li koy firndeel rek mooy walla la ca mujj ba léegi mooy tuuma yu rëy yooyu nga xam ne nun ñëpp bokk nañ ko dégg ci fan yi euh, jëm mu def ko jëmale ko ci Cheikh Ibrahim al jëmale ko itam ci sama jëmm kon daal kooku benn plan la buñ teg boo xam ne liñ ci jublu mooy defal ñu benn caricature boo xam ne kuy xool ku nekk wala ñu laaj la sax kan mooy Ibrahima Khalil wala kan mooy Mouhamad Lo lii njëkk a dem ci sam xel mooy ñooñu day ñooy ñi nga xam ne ñoo jàngal gone yi saaga ñooñu de ñooy ñi nga xam ne bëgguñu mag ñi ñooñu de ñooy ñi nga xam ne eh, nangam ak nangam caricature boobu lañu bëgg mu tege ci bëti nit ñi bañ jàpp loolu ba gëm loo leen ko benn bis dama romb jumaay Tuubaa waxtu timis jot ma jàdd julli di génn am ku ma dajeel koo xam ne xam na ma bu yàgg mu nuyu ma ne ah yow kon da ngay julli fii ci jàkka ji mu ne ah, waaw loolu lu ci nekk mu ne ah man de bàyyi na àdduna man de li ma doon dégg bokkut ak li ma gis ma ne ko ma ne ko waaw loola nga dégg waaye lii nga gis loola nga dégg waaye lii nga gis liñ bëgg a wax ci lu gàtt mooy am na ab kuréel boo xam ne seeni mbooloo lañ yor ak seeni xale yoo xam ne ñu sawar lañ fu ne ñu dugg fa nag bari ay wax lool itam lay leen tax a jóg mooy diaboliser ak yàq deru ñi nga xam ne xam ne nit ñi dañoo nekk ci alxuraan ak sunna di ci woote ak jéem a dox suñu diggante ak liggéey boobu nga xam ne ci la nekk loola nag boobaak léegi mi ngi bëgg a yàgg ndax lu dem ba ci ñaar fukki at ak juróom loolu lépp lu ëpp ci sunu dox yi nun dañ ne loolu duñ ci wax ndax lu ko may mën nañoo gàllankoor wala ñu tax waxtu woon mënoon def ci lu am njariñ nu wëlbatiku geesu leen di ko sànq ci ay tontonte moo tax loolu baaxawuñ ko waaye nag bu demee ba mbir mi àgg fenn fi nag jaadu na génn wax ak sénégalais yi ne leen mooy diw mooy diw ji doy na nga ne leen maa ngi nii nag man mii la lii laa gëm <coughs> lan moo xew li xew mooy ci loonu nu bett bisub talaata di fukki fan ak ñaar ci weeru octobre wi ñu nekk ci 2021 kenn ci doomi sëriñ si toog ci ak njoowaanam tudd turu Ibrahima Khalil tuumaal ko ne day ŋàññi màggal ga tudd ma man mii ne dégg na ma waxul ne dañ ma nettali waaye nee na dégg na man mii may attaqué sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ak alxaaji Muhammadul Faadil loolu yi lan dégg ci bis boobu te kenn ku nekk xam na ne Cheikh Ibrahima Khalil dégg ngeen li wax léegi conférence yi nga xam ne moom lay def wala ay xutba wala man mii ma di ko def kenn déggul ñuy tudd ay turi nit waaye nag noonu mu ko waxee lislaam lim nu jàngal mooy ci ci mbir yi ci la ñuy wax waaye disul wax ci nit yi ndax loolu dafa am xekma bu ci nekk alquranul karim bi muy wàcc amoon na noonu lislaam yu mag xoola xoola quraysh li ñu won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi giiru quraysh ñaata yoon la baatum Qurayshin ñëw ci alquran ci suuratu Quraysh li ilaafi Qurayshin ilaafihim rixlata shitaai wa sayf te ci lan lay wax ci seenum commerce waaye tontuwu leen saagawu leen ànd ak ne lu bari lu wàcc ci ay aaya yuy ŋàññe waa Quraysh googu ñoo ko moom waaye alquran tudd leen lan mooy xikma ba fa nekk mooy su fekkoon ne ay laaya dafa wàcc di ŋàññi Quraysh dem ba jëmmi jamono waa Quraysh tuub nekk ay jullit comme niñ ko defee tey alxuraan ji mënuñu koo dindi faw mu des ñu continuer di ko jàng di ŋàññi Quraysh te fekk ne nañ ay jullit Omar ibn al-Khattab bi mu doonee noonu bu lislaam laaya mënoon naa wàcc di ŋàññi Omar ibn al waaye defu ko ndax borom bi tabaaraka wa taala xam na ne jamono dana ñëw Omar bokk ci jàmbaari lislaam yi te bu boobaa laay ji dana fi nekk te kon jullit yi danañ ko jàng muy dégg kon moo tax lu alxuraan di wax ci ku mel noonu da koy junj lu dul koo xam ne nag yàlla xam na ni kii moom ci kéefar lay dee kooku mën naa jaar ci aw turam ku mel ne abu lahab kon doxin woowu ak méthode boobu nga xam ne moom la la lislaam jàngale noonu ci la ñuy dox tuddunu ay tur tuddunu ay kuréel waaye dañuy jàngle bi loolu jàllee ci wax loolu bi mu nu tuumaalee tuuma yu rëy yooyu ba àggal daa wëlbatiku ne mag sama mbooloo danan ko faj te luñ gis nañ xam ne mana noonu la ko waxe ñu jekki ba ngoonuk samedi fukki fan ak juróom benn ci octobre di guddik dimanche ji nga xam ne mooy le 17 ci boori 22 heures ay audio ñëw ci sama téléphone ma déglu ko ñuy wax ne groupe bu ñuy wax xuddaamul xadim ci ndigalul seen njiit te mooy borom njoowaan nga mi ngi woo mboolem ñi ànd ak moom ne nañ fab seeni ngànnaay te ñëw daj daje béréb sàngam ngir nag jëfe ndigal loole nga xam ne moom la sëriñ ba joxe biñ jotee audio yooyu yi def nañ la ca war mooy jottali ko ñi nga xamee ne ñoo yore sécurité mim réew bi loolu amee it ñooña jóg nañ def lépp loo xam ne lu leen war la tàmbalee ko ca suba dimanche jooje di le 17 octobre 2021 ba lañ mébatoon mujjul am loolu nag moo tax faaw sant cant bu wér étape Sénégal tàmbalee ko ca kaw ba ci suuf mboolem responsable yi nga xam ne jël nañ seen responsabilité ci mbir moom yi ba fay ak lakk goo xam ne suñ ko fayul woon mën nañoo xam fan la jàppe ak kan kañ la jàpp waaye fan la lakk googi di yam ak kañ lay fay loolu suñ borom rekk a koy xam bu boobaa ànd ak cant goog yi ak kàddu yooyu ma jiital nga xam ne laltaay la